indil leen garab gu yéeme yéeme di faj juróom-ñaar fukki jàngoro 70 maladies ah, loolee tax mu dippee ko si faaxu joni joni Cheikh Ousmane Touré nee na dina faj lii di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo xam ni fu mu toll di jooy ah, lii di kuli nag ak góor gu tëlee ulcère impuissance sexuelle fatiguement général nag moo ci man yéen ñi bëgg am adresse ki nga xam moo di Cheikh Ousmane Touré mën ngeen ko fekk fii ci 57 11 Sifa wu joni joni daal mooy mos dolli. li ci yéeni kay Abdoulaye Bopp dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy taxaw ci Aminata Touré mi ñu ne ba léegi ma ngay wut euh, kamuy àndal ci géew politique bi ak fa mu bëgg weeru yéen cabinet dina jafe lool ndax mi Mimi Touré ak na mu doxalee ci nguruk euh, Macky Sall yéen cabinet waa Benno Bokk Yaakaar mayatuñu lenn Mimi ture mi génn yàggul ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar euh, tey jii mu ngi doon am yaakaar ci opposition bi waaye nag ku jeeg politique bi daanaka tàmbale nañu xarab Mimi Touré bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante mooy Guy Marius xamle ne ana fan la Mimi Touré bi njiitu réew Macky Sall di noot askanu Sénégal lu ëpp ñaar fukki doomi aadama ak ñaar faatu ci nguuruk Macky Sall ñiy dundu métital ana fan la Mimi newoon bokk na ci tamit Mame Diarra Fam bokku ci waa PDS fàttali ne Mimi ñu bari yóbbu nañ leen kaso tey sa sago tax sa taxawaay bu ñu sukkandikoo ci Mame Diarra Fam gis ne Mimi mile mi kenn du ko jàppal tànk kenn du ko dooleel na wet ca euh, xeexam mu ngi ci Walf euh, Quotidien yéene kabi di le vrai journal ne njiitu réew Macky ndax jafe-jafe yi ko tënk ci jamono ji bokk na ci tolluwaay réew mi jafe-jafe askan wi eh, ci dundugu cher fipp gi am ci coalition Benno Bokk Yaakaar eh, ñu ne deetawaay eh, coow li ne cobbay ci troisième mandat bu njiitu réew Macky Sall ndax dina ko defam deet am nañu ci ànd am ñoo xamante ne xam le nañ ne njiitu réew mi Macky war warta mun a def troisième mandat l'info ne Moustapha Kane ci la moom mi doonoon chef de cabinet bu njiitu réew mi Macky Sall ne ko dëggal ci ay nopp njiitu réew Macky Sall ne war ngaa mun a def troisième mandat da bëgg a sànq euh, Sénégal euh, te Sénégal gii la ñu moom du ñu seetaan mukk euh, muy tabbi ci fitna wax ji wax ji mooy nañu wax ak njiitu réew mi Macky Sall mu teg troisième mandat gi ci suuf andu ci warta amal troisième mandat ci élection présidentielle yu 2024 Moustapha Kane moo ni waxee yéen a kaabi di réew mi quotidien élection présidentielle yooyu le des na waaye nag terewul candidat yi teel nañu yëglu ana lu tax ñu teel a yëglu fasal seen bopp ne ay candidat la ñu yéen a kaabi ne gis nañ ci candidature Ousmane Sonko Sonko maître Abdoulaye Tine itamit ne candidat la docteur Abdourahmane Diouf mu génn ci aar Sénégal googule coalition moom docteur Abdourahmane Diouf ne candidat lay doon ci élection présidentielle yu 2024 euh, marito ñaan xam le ne euh, daanaka dina doon lu ko bett lool bu déggee ne njiitu réew Sall euh, candidat lay doon ngir dagaan troisième mandat dina doon lu ko yéem yéen kaabi ne ci candidat yi ñu déggagum turu Karim Wade fesagu ca Karim Wade mile mbirum amnistie bi moo ko yéen cabinet ana li tax moom Karim Wade euh, soxlawul amnistie ci waxtu wi la yéen enquete enquête moom la bëgg a xam critique ne euh, Karim wadd mu ngi tendeefal ba léegi euh, procès gak nañu waxoon ne dañ ko càmbarewaat révision de son procès daanaka loolee amagul waaye nag Mame Diarra Fam moom xotti na taret li nga xamante ne mooy kayitu amnistie ne soxlawuñu Karim Wade amnistie ndax lañ ko tuumaal dara amu ca ba ñu koy setal mu ngi ci yéen cabinet critique yéen cabinet turbine li mooy Karim wadd euh, faw mu nangu amnistie bu buggee dagaan baatu askan wi bu buggee doon kuy falak di follek di fallu ci mim réew amul benn demande de révision goo xamante ne daanaka jawr gi ñu denk wàllub yoon Ismaïla Madior fal jot na ko mu ñeel euh, dossier Karim wadd yéen kaabi di les échos ne fësoon na lool ci dossier Karim Wade euh, procureur ba woon procureur bu CREI Alioune Ndao wax na ci digganteem ak njiitu réew mi Macky Sall moom procureur bi ne dossier Karim Wade googule bari woon na lool koppar waaye nag bari woon na mbirum xarga fu Diouf uh, bokk na ci uh, bu mu tàmbale di uh, gëstu moomelu njiitu réew mi Macky Sall ci juróom-ñetti milliards ñu ko doon tuddal bokk na ci tamit daj na ci lu métte métti leneen i tamit ci xibaar te procureur Aliou Ndao jot ko fësal jotoon na fee gëstu bi ab enquête gu yaatu ci juróom-ñaari milliards yu fonds taïwanais ak i tamit lañ ci jotoon gis ci i tamit naka sudul noonu président bi Macky Sall jotoon na ko xamal ne dossier Abdoulaye Baldé tegaat ko ci suuf waaye nag lu aju ci euh, traque des biens mal acquis lu tax euh, yëf ya euh, mujjeewul daanaka sotti ndax jafe-jafe ca amoon ndeketeyo Ismaïla ndeketeyo Sidiki Kaba gannaaw buñ ko falee jor ngi ñu dénk wàllub yoon ca la traque yi tàmbale daanaka am dal bokk na ci ne fësal na candidature am ci élection présidentielle yu 2024 moom Alioune Ndao procureur ba woon ne dina bokk ca ñe dagaan baatu askan wi yéen a kaabi di Le Soleil ne Dakar doon na yoonu Afrique jëm ci forum international national gu ñu jagleel jàmm ak kaaraange yéen cabinet ci diirug ñaari fan daañu càmbar nees mun a def ngir mun a wattu kaaraange bu Afrique xeex mbirum terrorisme direct news ne député Abdoulaye Diagne xam le ne ndaje googe yegg si na ci waxtoom ci njiital Union africaine njiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet di Dakar Times ne juróom-ñetteelu sommet jëm ci wàllu jàmm ak kaaraange ci Afrique bu ñu defu ndànk dañ ci fàtte ndaw ñeek jigéen ñi ñoom la ñu nar ci forum bu Ndakaaru ndax bari ndaw ñoo xamante ne ñu ngi soobu ci wàllu terrorisme la leen cay yóbbee eh, bokk na ci ñàkkum xëy ñàkkum tàggatu ñàkkum financement ak yeneen ak yeneen ci gox ya ñu ne amul courant ndool gu metti la ñuy dund ñu ngi leen di noot eh, di leen eh, salfañe seen ak ak yelleef ba ci wàllu démocratie yéen cabinet tey ndaje gindi mel Dakar bu ko daloo faw ñu jox kaddu gi ndaw ñi wala boog jigéen ñi buñ ko deful dal daanaka dara du sotti ca gogu lépp ndaje yéen cabinet di las ne ci ñi sax ci ñoom waar yéene cabinet Farmata Ibrahima lii lay wuyoo ab jàngalekat la goo xamante mu ngi doon xaar affectation ndax directrice bu bees la ci benn école yéene cabinet eh, ca laata muy dem ca googule affectation nag eh, lañ ko faat moom jàngalekat ba eh, sànni ko ca àll wa yéene kabi di las moo ñu ko yëggee libération ne musiba am ca wokam bokk na ci jot nañ fa teg loxo ñoo xamante ñu ngi doon yëngu ci wàllum dorog wàllum blanchiment d'argent yéene cabinet ab doomu Nigéria fes na ci waaye nag bokk na ci ab sénégalais goo xamante ne Ibrahima Dabo lay wuyoo mujjee nañ ko teg loxo libération ne kawteef am na eh, ca juma bu Karak fii ci amitié trois eh, keesu juma ja moo sooke ndaje assemblée générale gañ fa doon amal ay xeer ak chaise ak kurpeñ ñoo mujjee eh, tas ndaje ma coow la la ko waraloon mooy xaalis ba ne woon ca keesu juma ja fan la toll naka lañ ko jëfandikoo yéen kaabi di laas ne ba tax na jafe woon na lool nga mun faa nodda xutba ca googule juma bu Karak amitié métier 3